soxna si ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bu baax. yow da am histoire bu compliqué bu complexe boo dund ci sa néegu say ja. waaw dama ku baax dama dama doon sëy ak sama jëkkër. Mhm. mais avant may sëy ak moom dama xamante woon ak benn paa paa bi nag wax dëgg yàlla. ma doon satisfaire bu baax. paa bi dañ daan génn ma nag moom di seq lu ne mais dama xamante woon ak jabaram nag paa bi sëyuñu après ma am jëkkër si diggante bi sama jëkkër nekk jeune waa parce que mu ngi toll ci ay quarante cinq ans quarante six ans yooyu daal mais bëgg naa ko loolu moom sama jëkkër mais mënuma satisfaire awma ci moom benn satisfaction ci wàllu sëy c'est-à-dire day gaaw yëg boppam ci kaw lal bi day yëg boppam teel a yëg boppam te man fekk na àgguma fenn après nag man dama dem ba gisante waat ak paa bi ma gisante ak paa bi man ak paa bi nag ñu ngi dundaat suñu dund waaye nag wax dëgg yàlla paa bi moom am na quatre vingt ans mais damay am yëg-yëg ci moom daf may satisfaire à cent pour cent. c'est-à-dire moo gën a dëgër sa jëkkër. ah man de pas man di ma santir ci moom. moo ko gën a dëgër bu baax. d'accord kon jamono ji yaa ngi ci sa biir sëy mais yaa ngi gisanteeg paa bi ci geneen anam kon ñu wax ni da am jëkkër am nekkaale noonu lañ ko mën a tuddee. waaw mën nañ ko tuddee loolu mais nag nit kese la ah, damay lekk xorom ak suukar. te dama bëgg yëg lu neex te ci paa bi laa koy yëgi te sama jëkkër dama ko bëgg tamit bëgguma ko bàyyi mais mënuma satisfaire léegi lii solution nga ciy wut wala solution laa bëgg léegi laa bëgg solution nit ñi wax ma ci seen xalaat naka laa war a def sama jëkkër te bëgguma ko bàyyi parce que dama ko bëgg boo gisanteeg paa yi ba pare boo ñëwee bu la laajee sa bopp nooy def. mënu ci dara dama koy jox mënu si dara mënu ci dara.